ومجموعة من مرافقيهم ومن معاونيهم فأتوا خصيصا للمشاركة معكم في هذه التظاهرة الإسلامية العظيمة وهي ذكرى غيبة شيخنا شيخ أحمد بن رضي الله تعالى عنه إلى المنفى هذا اليوم هذا الحدث التاريخي الذي أصبح من أكبر المواسم في العالم لا أقول في إفريقيا لكن بل أقول في العالم لأنه موسم يشارك فيه ملايين من الناس والشيخ أيضا كذلك يقول أنه يثمن ويشو ويشيد بهذا الدور الفعال الذي كانت دولة حكومة موريتانيا قديما وحديثا تلعبه مع جميع الزعماء الدينية في القارة الإفريقية خاصة مع أهاليهم في طوبة ويستحسنون جدا هذه المرة مع هذا الرئيس رئيس هذا الرئيس سيد محمد بن الشيخ القسواني الذي أوفد هذا الوفد الميمون لأول مرة برئاسة وزير سيادي ليرأس وفدا كبيرا رئيس رفيع المستوى لحضور موسم مجل طوبة فجزاه الله خيرا عن المسلمين وجزاه الله خيرا عن الطريقة المريدية وعن مدينة طوبة المحروسة wa ala rasihim fadilatu cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifa alaam li tariqa almuridiya fa cheikh Bachir yashkurukum mujaddadan bismihi huwa shaxsiyan wa bismi alxalifa alaam li tariqa almuridiya wa bismi kulli ma afraad wa atbaa wa ahbaab tariqa almuridiya wa bismi kaafati zuama walmachaayix walbuyutaati diiniya fi Sénégal wa fi lmintaqa mbokk yi ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp ñoo ngi rafetlu bu baax a baax jotaay bi nga xam ne am na te li ànd ak délégation bu tedd bi def naa lim naa ko léegi te ki ci jiitu rek mooy chargé d'affaires bi nekk ci ambassade bi ak monsieur le ministre Ba Madine Ba mi toog ak ku bokk ci consul bu Mauritanie bi nga xam ne moo toog ak moom ak euh, membre protocole président bi nga xam ne moo teew ñu ñëw fii ngir ànd ak sëñ bi ci xew-xew bu mag bi waaye nag yemuñ ñi rek ci ñëw ci waaye bi ñu ñëw dañoo jàpp màggal gi seen yëf la moo tax dañoo jàppale sëñ bi ci wàll yëpp mooy dañ ko jàppale mooy dañoo jubloo wan ko ne ko gan ñi ak ñoom ñoo ko bokk moo tax addiyee am solo yooyu nga xam ne sëñ Bass dana génn léegi xool ko bu ngeen ko génnee gis ko muy gileem yooyu ñoo àndaale moom ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni waxtaane nañ ko ak sëriñ bi ci yëpp rek ñu koy ngir mu jëm ci bis bi ndax ñoom dafa jàpp ne moom président bi moo sëñ bi ñoo bokk àtte ci màggal gi ñoo war a dalandoo gal ñi ñoo leen war a toppatandoo sëñ Bas mii nag ginnaaw bi sëñ Muntaxa dalalee gan ñi nuyu nuyoo ak ñoom da ku ne xam na taxawaay bi nga xam ne sëñ bassiru mi am na ko ci yoonu murit loolu duñ leen ko wax yéen waaye nag muritaan yi dafa mel ne wàllam la da ko féetewoo ngir xam ko ko sëñ Tuubaa xamoon wax naa leen léegi rek ci langue arabe ne fi mu dem tukki bu officiel année bu jot nga xam ne dana ci ànd ak ñun ñi ak ñu bari Mauritanie rek la année bu jot am na waxtu xam ne bu jotee dana ànd ak ay borom xam yu bari ànd ak kilifa dem seeti leen bu demee dox fa def fa taxawaay yu rafet wër daara yi ñuy jànge wër wër jàngukaay yu mag yëpp wër kër diine yi fa nekk yëpp wër taalibe sëñ Tuubaa yi nemmeeku leen bu demee bay dem de organiser fam ndaje bu mag a mag moo xam ne da ci invité borom xam-xam yëpp xam ngeen ne kon sëñ bi la wax ne day mel ne moom kon ku ñuy booleel lu jóge murteen lu mu mën a doon lu mu mën demee rek war naa jaar ci moom ndax i téwoo gum koy téwoo ca moom it tegu ko fenn rek lu dut xam ne Serigne Touba yi téwoo na Mauritanie lool lool lool am na may yu bare bari yoo xam ne Mauritanie la ko yàlla mayee maa ngi ci joxe misaal rek wax naa ko léegi ci langue ren jii ba nga xam ne sëñ Bass dem na fa ak ñi mu àndal taxawal na fa colloque bu mag a mag ci palais congrès ba boo xamante ni ñoom Mauritaniens yi ba léegi dañuy wane ne loolu kenn musu koo gis maanaam moom rek moo ko fa man mooy dajale fa waa réew mépp rek waa mépp rek ñi juboo ak ñi juboo wut ñëpp mu dajale leen ñu waxtaane fa Serigne Touba waxtaane fa diine ji nga xam ne ñoo ko bokk loolu nag mooy waral ay tànkam foofa at mu jot loolu moo waral it kon xam ngeen ne ku jógee Mauritanie day mel ne ñoom dañ ne jàpp nañ ko jàpp goo xam ne bu leen ko sëñ bi waxutoon nit sax en tout cas ñoom ñemewu dugg fenn ca jaare wuñ ko ci moom ndax nag araab yi dañuy wax ne man ruziqa min baabin falyalzamhu nit ki bu ko yàlla mayee xéewal jaarale ko ci benn bunt bunt boobu da koy téye bu baax baax lool moo waral seen tànk yi kon sëñ bi bas mi ngi leen di dalal bu baax a baax ci turu Cheikh Ahmadul euh, mi ngi leen di yaatal bu baax en tant que di seen xarit moom di seen wëllëre mi ngi bég bu baax a baax ci li nga xam ne am na it ci yoon wu njëkk mooy màggal Tuubaa am délégation bi ñëw nga xam ne ab ministère la ñebal mu ñëw jiite si ko loolu nee na mi ngi koy rafetlu bu baax a baax ku ne xam na ne loolu liñ ciy déggee ñun boog ñu ñi nga xam ne ñoo ngi koy jàppale di ànd moom mooy jéego yi nga xam ne mi ngi ko doon dox te sonn ci lool te xam naa rek nu ko nit mën a jàppee waaye jàpp naa ne kuy gis da nga xam ne résultat bi moom alhamdulilahi taala ñëpp gis nañ ko te lii rek mooy li nga xam ne moom la bëggoon mooy ñoom ñu delluwaat jàppe sëñ bi comme niñ ko naka jekk jàpp nañ ko waaye nag kóllëre gi demaat ba àgg ci jàpp naa ne nag kóllëre mënta gën a kawe li nga xamante ni am na tey ji ci ngeen seere seere ko ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp kon monsieur le ministre la ñuy jox rek mu sànni ci kàddu yu yam ci arab bu noppee euh, chargé des affaires ci ambassade ambassade Mauritanie bi nekk Dakar Sidi Mouhamed dana ci wax ay kàddu yu gàtt moom tam ci français rahmaan rahim bismillahi rahmaan rahim wassalatu wassalamu ala nabiy al وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين فضيلة الشيخ السادة الحضور الكرام السادة ممثلو سفارتنا في جمهورية السنغال الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية باسم فخامة رئيس الجمهور السيد محمد والشيخ الغزواني والحكومة والشعب الموريتانيين جئنا مهنئين بهذه المناسبة الكبيرة مقلطباء جئنا مشاركين لإخوتنا هنا في هذه المدينة المباركة مشاركينهم فرحتهم وبهجتهم وراجين لهم من الله التوفيق ولنا ولجميع المسلمين في كل ما من شأنه أن يعلي وأن يخدم هذا الدين الحنيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء Le ministre mauritanien des affaires islamiques et de l'enseignement originel, euh, a dit qu'il est venu pour partager avec vous cette euh, célébration du Magal de Touba. Il est venu au nom du président de la République islamique de Mauritanie le président Mohamed Cheikh El Ghazouani pour réactualiser tout ce qui s'est fait jusqu'à présent de bien entre la Mauritanie et le Sénégal et œuvrer à la consolidation de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent entre aussi la Mauritanie et la ville sainte de Touba. Euh, il est venu pour participer avec vous et partager avec vous cette célébration et vous dire que en Mauritanie, le gouvernement, le peuple mauritanien sont solidaires avec tout ce qui touche Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Donc, euh, sa présence ici, pour la première fois à ce niveau, beaucoup de ministres mauritaniens sont souvent venus ici, mais qu'un ministre vienne pour représenter la Mauritanie à la cérémonie du Magal, c'est la première fois que ça s'est passé, et il se réjouit d'être ce ministre qui a été euh, précurseur de cette, de cette présence ministérielle mauritanienne au niveau du Magal de Touba. En tout cas, c'est en résumé ce que M. le ministre a dit. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. xam nañu it ne lépp lu ñu nas ci réew mi bu ñu ko ñaanee fii ci Touba def ko waaye bu ñu sante xalif ba pare dañ lay sant man personnellement sa taalibe maa lay sant ci sa taxawaay ci réew mi waaye ci sa taxawaay ci njaboot gi dafa am jëm yuy dalal xel te sa jëmm bokk na ci ñi nga xam ne day dalal suñu xel ñun parce que bu ñu la gisee jàng ci bu ñu la dégloo it jàng ci moo tax tey ñu ne dinañ ñëw ziyaare la ñaanal la yàlla yàlla yàggal la fi yow tamit te nga wër yàlla kattanal la ba fi nga bëgg a yegg ci yoon wi yàlla yeggal la ko fa sëriñ bi damay sant ñi ma àndal yëpp ñenn yi di njoppatul sëriñ Touba li tax ma leen di sant xam naa ne cër moo tax bu ma duggee ci dëkk bi lu ñu def ñu bàyyi ko ñu ànd fu may siyaaree ñu ànd te am na lu bari lu ñu waroon a def fii waaye nag nit bu la jàppee boo gisee ki nga xam mooy seen kilifa nga jote ci moom danga koy seede ñii nga xam ne njobootu Serigne lañ dëkk Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm ci taxaw bi ñu taxaw sama wet boo ma fi ñëwee taxawuñ nag sama wet taxawaayu politicien waaye dañ taxaw en tant que taalibe ak ay sëriñam waaye ay ay nit ak i mbokkam bu loolu wéyee di sant Mbaye peex xam naa li lay sant bariwul mais man dama lay sant parce que yow yaay santaate yaay yëkkati nit ñi di wàcc sa bopp te defe naa ne kuy wër taalibe ci yow la koy gis nga nag kuy fàtte sa bopp di yëkkati nit ñi yaay vrai taalibe moo tax yow tamit dañ lay ñaanal di la sant ci sa taxawaay yàlla Serigne Touba lay feyal boppam parce que ku taxawu yoon wi nga di sant Abdou Ndiaye di sant ki nga xam ne mooy libaas ñooñu dëkkuñu fii waaye bu ma jógee ñu jóg di sant maam góor Matar Diouf ak ñi fi nekk yëpp Mohamed Sylla sama rakka loolu ñëpp xam nañ ko sëñ at sëñ ateex nag maa ngi jéggalu sëñ bi sëñ ateex dellu ci waaru yi loolu nag ñu ngi lay ñaanal kon ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne kum nongu kum téyel boppam dara du yàqu ci sëñ bi yàlla na la téyel boppam kon ñu ngi lay rafetu sa taxawaay di la sant di la gërëm di ñaanal ci barkeem mu yokk sa taxawaay dëgëral la doole kàttan gi ba li ngay yéene ci ginnaaw sa kilifa nga àggale ko nu kawe sa njort di di la sant yi rawatina njabootu Sëñ Tuubaa gi ni leen jàppe tañ seetlu ko ci yow ndax boo jugee ñu ànd ak yow rek loolu ci sa jikko la ak saw doxin ndax ab taalibe kat wërteem ci kenn ñaar waaye dafa war rafet a jëme ci ñëpp képp ku mu gis nga bokk ci sëriñ bi mu xam ne war ma ji war na la sa digg moom ndax sëriñ Souhaïbou mas naa wax ne sëriñ Touba nee na ko teral ku bokk ci man yàlla teral la ba faw naa ne safaan ba na naka noonu kon loolu itam gis gi gis nga ànd suñ njaboot gi ñu ngi koy ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di ko rafetlu bu baax di xam ne loo leen sëriñ bi nga kon ñu ngi leen di nuyu rawatina suñ Modou Habib mi di suñ doom waaye juróom Serigne Cheikh Faye di suñu mag di suñu xarit di suñu lépp ak euh, ateex sa moom xam naa yaa ngi koy tooñ sa waaye kon boo boo génnee nga yeddaat ko <laughs> ak Mouhamed Sylla mi nga xam ne mooy itam lépp la ci kër gi ak mboolem ñi ngi ànd ak ñëpp daal Abdoulaye Touré bàyyiwuñ kenn ñu rafetlu daal sa digg ñoom ndax njaboot suñu Tuubaa gi ndax ñoom ñoo la koy seeral ñoo la koy seer foo nekkut di la ko seere ci foo teew kon nag ñu la ci ñaaral li ngay jëf ci ñoom ngir jëme Sëriñ Tuubaa yàlla la ko Sëriñ Tuubaa fay tam gën laa yóbbu ñu itam ñi ngi fetlu suñ diggee bu baax ndax xam na ne am ci yow suñ diggee yow lépp def nga ko ba matal ko ba kon nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne lu ñu nit defal rek jëmm ba tax yàlla na fayal la boppam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.